asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 9 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb la ñu xëy commencé ko kaay bi nag tey Balla Gaye numéro 2 la xëy tey wan ñu ko Balla gay de boo xam ne day mu nga yenu ay ndaam yu xonq di ko toj bopp baa nga weex tàll yëglikaay bi di sunu lamb nag nee na est-ce que Lac de Guiers 2 mii bu dee booy Niang da ko daan est-ce que Balla Gaye de dootina mën a bañ Boy Niang bu keroogee bu fekkente ne loolu am na sunu làmb nag moo xëy tey di laaj boobu laaj keneen am na koo xam ne moom mu nga cay tontu muy Paala Diop dëkk ca Pikine Paala na ne bu keroogee bu dee Boy Niang daa daan ne na Balla moom dootul mën a jaar fenn bu ñu bëree ak moom ndax nag su keroogee boo xoolee adversaire légitime maanaam daal day nekk adversaire boo xam ne day day jaadu tey day doon loo xam ne day war a am Omes Diagne moom di entraîneur nee na Pala Diop day loolu ngay wax teey ci ndax su keroogee nag Balla lay neex même bu booy Niang daanee day neex Balla rek ngir mu jël kii nga xam ne ni moo di booy Niang moom daal Omes jàpp na ne bu keroogee Balla moo yor cëggal guyam mooy xool la muy choisir jël booy Niang wala mu jël leneen ñooña nag tey ca loola la ñu xëy sunu làmb xëy dinu ko wax booy ñang ma nga xam ne nag moom la ñu xëy di wax ca moom day burxaan wat di ab menacem mu ngay wax ca moom burxaan ne na day fi mu nekk nii moom mbërëm mu ngi ci forme boo xam ne nii day forme bu leer nañ bu wéri wéri wér forme boo xam ne daal pare moom def na ko bu yàgg a yàgg booy ñang ko wala boog burxaan a xëy tey di ko wax ka mu war a bëreel nag suñu lam won na ko won nañu ko di ñu xamal ne day moom am na ñetti atu ci combat bi ba ca jëkk mooy expérience bi parcours bi mu def ak force bi nga xam ne ni tamit force am la muy wàllum tactique moo tax yëglikaay bi suñu lam day nee na ñett yooyu day Lac de Guiers numéro 2 ay force am la ci combat bii nga xam ne ci la jëm digganteem ak Boy Niang koo xam ne moom bëri na ba ñàkk kombaam muy aada faas aada nag mu nga xëy ci sunu lam di expliquer li nga xam ne ni moo ko dal ci kombaam rawatina nag ku ya nga xam ne jël na ko ñeneen ñoo xam ne moom jëlante guñu ay coup wala ñu joxante ko boog mooy kii di Liss Ndiago ak Ahmed Lagros Assane Ndiaye taxawal seen am combat moo tax nag yëglikaay bi di suñu làmb day jàpp na ne le 16 juin ca lañ leen dugal ñu war caa bëre muy ñaari xale Liss Ndiago dëkk jàmm gën Ahmed Lagros dëkk Bawal sunu làmb xëy wax nu ko keneen koo xam ne moom ab combat ca Thiès la fas yéenee amee ji mooy Baye Ndiaga bu sàkku xam-xam Baye Ndiaga nag mu nga xëy di dànkaafu booy jaxaw nee na ko li leer ba leer day Thiès laa lay fekk jubbante yëkkati la la ci sa biiram dëkk bàyyi njaga daal lii la wax booy jaxaaw ci yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu làmb beneen combat boo xam ne day ñu ngi koy xalaat wala boog ñu ngi ci di ko lijjanti ka koy def mooy Fallou Ndiaye moo di kàngam ak ilo sunu làmb xëy tey wax nu ko leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci sunu làmb muy combat boo xam ne day jàpp leen ne fi mu nekk nii day wala boog mbër moo xam ne day ba mu daanee ba tey rëg-rëg ci lit simple bi muy général Malick jël yëglikaay bi di làmb day nee na mu ci jógee ba tey daal ay defet lay teglante tournoi yi mu fi jot a bëre yépp da koo ñàkk sunu làmb xëy tey dina ko wax mu di kii nga xam ne mooy général Malika combat kii nga xam ne tamit mooy Diène Kaïré ak Quench tamit sunu làmb ñëw na ci ginnaaw seenu face à face face à face ba nag yëglikaay bi sunu làmb day nee na kera ci benn Euh, jamono wala am na ci ay minutes yoo xam ne day dafa xawoon a sedd waaye père Max Mbargane daal moo wax gaa yi nag wala boog moo leen doppe yëngal ko ba mu yëngatu père Max ma ngeen xam sunu làmb moo xëy dinu ko wax waaye Leewtoo point net dan fay dem mu mel ni Garga Mbossé ak Moussa Ndoye nag ginnaaw ba ñu bëree ba Garga daan dafa mel ni ki nag suba day fa nga xam ne moo di ci ministère des sports Moussa Matar ba ma yore sport réew mi moo leen fa fas dalal suba ci 11h Leewtoo point net tey dina ko wax leneen loo xam ne tamit ca Leewtoo TV la nekk muy ay vidéo jàpp leen Ibou Ndiaye Obali moom nag dem dañ koo seeti woon moom nag mu ngay wax daal nekk daal digganteem Reug Reug wala Gris 2 wala boog seen diggante ñoom ñaar fa la sëmpam dëndëm ku daan ak ku ñu daan ñëpp dalaa soxla ngir bëre ak yow ndax nag defuñu fi lu mu deful te sax ñooñu ñooy ay adversaire am ëbbalee wax loolu da ngeen seetaan boobu vidéo ca Leewtoo TV benn vidéo boo xam ne day man ngeen koy seetaan ca Leewtoo TV te du yàgg dara mooy kii nga xam ne nii moo di kii nga xam ne mooy ondu la fuu ondu daal dim ndogom la moom doyoon na waar ondu daal def na la ko saf waaye tam sax def na la ko neex ndogu loo xam ne neex na waaye tamit laal na fa ñi nga xam ne ñoom la bëgg a bëreel muy waxtaan woo xam ne day wu neex a neex la ca Leewtoo TV la ondu la fu defe lu mel noonu kon nag daal li am ba des day mooy wax ñi nga bëgg a bëreel wax ñi say adversaire yaakaar naa ku ne sañ na ko waaye koor gi bu ñëwee itam ndogu yi itam day da cee bokk Talla Ndiaye ndogal ondu la fuuli démb day daa mel ni day ndogu la fuut de ndogulu nitee nitee nitee nitee la Taala Njaay ndogoo démb ca kër ondu la fu wala kër xaritu ondu la fu ba Taala Njaay yàlla na jàmm yàgg Taala Njaay yàlla na nangu yàlla na yàlla nangu koor gi Taala Njaay yàlla na xol yi sedd ba mel ni galaas Taala Njaay jàmm wuur yàlla nañ ko yàlla defal tereng man nopp ko lool macha allah di ko ñaanal jàmm rek comme ni mu koy waxee di ñaan yàlla njaboot gi ñu yàlla may yàlla na ko yàlla yokk te mu barkeel te ñu fekkee seen njëriñ mais di ko ñaanal ñëpp ñoo xam ne ni daal seex na njaboot di la wax ne que daal ma ngi lay fay séeri dadi nday Kumba Fall. <laughs> jërëjëf Babacar ñëw na si jàngatu arène bi ñu commencé kooku sunu lamb sunu lamb nag tey di ngi def à la une maanaam Boy Niang ñoom daal di ngi wutal Boy Niang adversaire te Boy Niang bëreegul waaw dañ na kuy am na nuñ koy waxee de ah, am na nu ko olof yi waxee kuy maanaam daal euh, am na am na benn wala boog li ma xam daal mooy ah defe naa ne mënoo nekk ci komba combat ba jeexagul ñu naan la adversaire bi ak adversaire yaakaar na waaye nag ñoomit waa sunu làmb dañuy xalaat dañoo dañu teg ay sema xalaat ne bu fekkee lii am na lan moo ko ci war a mën a fekk dafa daan lu ko ci war a mën dañ naan bu daanee Lac de comme ñoom ni ñu ko waxee. mook Balla Gaye combat la wala bu ko la dëgër daane est ce que nangam wax loolu nag xalaatu nit la mais loolu liñ ci mën a xamee daal mooy que ni na combat bi bi mu jël ak ki ñu xalaat ne moom la bëgg a bëreel te jotagul ci moom mooy Balla Gaye moo taabal ji ñi nga xam ne nag tontu nañ ci tamit ku mel ni Palla Diop comme loolu mu wax ne moom ah euh, bu ko daanee bu fekkee Boy Niang moo daan moog lag moog Balla dee su ko mën a bañ wax loolu ku nekk sa xalaat ku nekk sax waaye Omez nee ko moom mooy choisir Balla instant yi nekk na position boo xam ni mooy choisir kan la war a bëree waaw loolu mooy li ma la wax rek si suwaa rek xam nga Omez xalaat boobu la amee moom jàpp loolu Palla gis ne que bu fekkee booy ñaar daa daan mook da la dëgg Balla mënatu koo bañ Omez gis na ne loolu bu fekkee rogee itam day neex Balla loolu moo la yoon ne xalaat yi du doon benn ku nekk da am noo gisee waaye li xam mooy euh, Balla Gaye tey moom fi mu nekk nii ci làmb Euh, fi mu nekk nii ñëpp bëgg nañu bëri ak moom booy ñang itam nekk na xale boo xam ne nii bëri ñoom ñu ñuy tudde ay VIP la bëgg wala ñoom ñuy tudde ay mag loolu la bëgg te mu ngi ci lancé boobu ndax fi mu génne daaw ak fi mu duggaat ren moo lay wan ne ba tey la fa mu teg bëtam teggeeku ko Balla it loolu Omes Diagne wax xel war na ko mën a nangu même bu fekkoon ne booy ñang dafa dafa daan lag de guerre bu ñu nee Balla itam bu keroogee am na droit ne duma ma bëri ak moom waaw mais bu ko daanee itam bu fekkee ci cadre sport la wax lamb da di boole bu dee ci cadre sport bi la wax waaye bu keroog itam day neex Balla mu ne damay bëre wala mu na parce que tamit mbër mi mi miy bëre mooy xool ah, li ko arrangé mu def ko waaw. ñu des toujours si combat ah, Boy Niang Lac de Guiers euh, waa sunu lamb ñëw nañu si force yi nga xam ne moom moo tënk tey Lac de nee ñu am na euh, expérience am na parcours bu baax bu pare am na euh, force tactique aussi. waaw loolu yëpp ñu seetlu moom ci moom am na ci moom. Lac de Guiers expérience bi macha allah parce que xaw na yàgg ci làmb ji tuuti ci côté euh, parcours bi tamit parcours bi mën nga ne parcours bi mu defagu bëreegu maanaam jafe-jafe yu bëri amagu ci parce que boo xoolee ñaar defet yi mu ci am euh, benn bi mook Eumeu Sène la beneen bi ci des mook Modou Lô par décision arbitrale te ba tey da koy contesté kon loolu moo lay wan ne que parcours am vraiment na aw yoon parce que boo xoolee mbër yi mu ci dugal ñoom Papa Sow ay nees Yékini xam nga bëri na ay Babacar Diallo bëri na daal mbër yi mu bëreel xam nga kon moo lay won ne daal moom itam ah waaw mbër la boo xam ne daal parcours bi mu amee moom loolu dina nekk lu nga xam ne lu ko war a mën a dimbali ci combat bi la ba pare itam nekk na mbër moo euh, que li may wax moom rek mbër la bu nga xam ne ndey mu mbër bu naqaree déstabiliser la moom la dëggeer numéro 2 mu jëm ci combat boo xam ne nag waaw te itam waaw benn waaw benn défaite waaw buñ ne xëy ñaari défaite la ñuy compter ak lu mën a xew moo ne ci palmarès bi kon ñaari défaite lañ mën a jàpp ne moom la am ci li nga xam ne moom lañ gis ci copier loolu mooy li am muy Eumeu Sène bi ak ak Modou bi waaw waaye nag comme li ma waxoon dem lay wax rek gisaguñu fu ko mbër duma daan ko jéggi ko demu yoonam loolu moom gisaguñ ko ci làmb mu dem mu dal ko Babacar nu dellu si combat bi nga xam ne moo amoon le premier mais mooy fait du travail diggante Ada Fass ak Onde Lofou Ada Fass mbër bu fep play parce que nangu na défaite bi nee na coup bu mu jël si Onde Lofou moom moo ko déstabilisé ba mu daanu. waaw du woon sax le premier mai xam naa le premier ba daa neexoon ci yow mais weekend bii jeex la maanaam dimanche euh, samedi passé la woon. parce que du koor gi kon koor gee la bëgg a <laughs> bu yàggee mbaa du gën a métti ci yow wax tamit mooy li si combat bi ah parce que defe naa loolu moom moom mi bëri. moom loolu yëg yëgal na ko boppam te ñun ñu ne di seetaan tamit wala ñuy reporté gis nañ ne que coup yi mu jël moo ko déstabilisé ba tax ma mënatul gérer lu bari ci combat bi at ba adversaire am yegg ko fenn fi coup nag li may wax chaque jour rek moytu ko moo gën a wóor di ko jël parce que des fois nga jël ko fu la neexul ndey kumba balaa ngay réfléchir mën nga am kaw dëbu wala nangam sangam te coup dafa nekk lu doy waar bu ñu la ko dooree mën na la indil ay difficultés yoo xam ne nii balaa ngay defaru leneen mën na la ci fekk kon loolu moo wax moom Ada Fass loolu ama am la ku la jël yu metti di ko encourage di ko wax na xale la na continuer nekk ci li mu war a ne te itam mu xam ne que làmb daanu da cee bokk mais mu xoolaat bu baax a baax ginnaawam xoolaat entourage am Onde Le Fou nag li ñu koy wax mooy félicité ko di wax ne que nit ñu fàtte woon nañ ko ci làmb mais ñëwaat na kera wane boppam waaw bu baax a baax a baax ñu jël ko dem ndogu tamit ndogu lu neex a neex kenn du Onde Le Fou. toj nga fa dégg non on dafa toj. <laughs> Talla Ndiaye nu des euh, Babacar ñu ngi si koor amaana waaye promoteur ñoom ni ngi taxawal ay combat ku si mel ni Assane Ndiaye taxawal na combat bu ñuy wax Liss Ndiago ak Ahmed bu Lagros. Ahmed Lagros Ahmed na combat bu métti arène nationale Assane ko tëggoon ñàkk Liss Ndiago yaakaar naa mu mujj da koo gagné kon combat ay xale lañu mais itam boo gisee xale yu mel noonu ñu di leen copte ci yenn journée yi parce que dafa am dañu nekk xale yoo xam ne ay xale lañ ñëw ful bi ñuy drainer day doy waar ku mel ni ah, Liss Ndiago moomu gis nga mbooloo mi koy topp mu nag xale boo xam ne waa jàmm gën dañ ko bëgg lool kii di am Ahmed Lagros tamit di doomu Bawol moom tamit nekk xale boo xam ne xale bu Bawol Bawol yi bëgg la parce que gis nañu jom ji muy bëree kon daal Assane Ndiaye moom tamit mu ngay renforcer su journée rek parce que ci lu mu bëri bëri bëri bagage yu duuf boo ko xoromee day gën a neex ci lañ koy mën a lekkee ñu <laughs> dem si ñu dem ba Malika fekk fa général Malika nee ñu depuis bi mu daane rek rek euh, si Adrien Senghor le 14 avril ba léegi moom daal nam daf ko tër ndax ñetti galaa yi fa am yëpp ah waaw loolu day moom parce que mu daane rëg-rëg daal nekkoon na loo xam ne nii ah lu extraordinaire ci ni ñu ko jàppe woon waaye moom mbër mi damaa yaakaar ne loolu waru koo def lu extraordinaire parce que lu tax mooy làmb la rek ñoom ñëpp dañuy daje di bëri war na mën a daan rëg-rëg mais daan rëg-rëg ba pare itam teglante euh, tournoi yi ci topp nga ko ah, loolu jar na jàngat xamuñu ndax dafa daan rëg rek yaakaar ne foofu la làmbam yem bu fekkee loolu la man dama daan ànduma ci loolu waaye itam xëy na euh, dama yaakaar ne rek ñi mu dajal dañ ko waroon daan daan ndax dañuy daanante ndax fi fi fi eh, boo xoolee kere bi ñu koy génne premier mi premier tour Grand Mbagnick moo ko daan mu ñàkkaat na fi yeneen tournoi muy ñett yoo xam ne euh, kii nañ ko euh, li ñu leen di wax daal mooy que ni ñoom mbër yi mbëru simple yi euh, dañuy daanante seen biir tey man nga neex le neex le ba benn af ba benn moment ñu stoppé la ndax rëg-rëg général Malika bi mu ko daanee nekkoon na coow mais encore fois ñoom nañ jàpp ne rëg-rëg seen adversaire la ci biir bëri war nañ ko mën a daan suñ ko daanee tamit ñu bañ koo def loo xam ne nii dañ koy yenu mais mu nekk loo xam leen war a mën a yokk pour ñu mën a gën dem ci kanam mais soo ko daanee ba pare nag di mu mel ni da ngay xaw a arriéraat bu keroog nit ñi dañ naan est du yow waaw tandus la wala waaw nuñ ko mën a tuddee daal mais ñoom leen di nuyu di leen Babacar ñu des toujours si mbiru simple yi te euh, démb Leewtoo TV demoon na seeti ki ñuy wax euh, Ibou Ndiaye Diofior wala Ibou Ndiaye Obali euh, moom daal teg na ndëndam daal si combat bi diggante Reug Reug ak Gris ne daal ku si daan ak ku si daan yëpp par na pour jël la. waaw loolu moom mooy li nga xam ne nii xam naa dinañ seetaan vidéo bi ci Leewtoo TV biram ñu ngi moo ko woon dem ak yow mi mu nekk mbër bi nga xam ne tamit lit simple bi am xorom amateuru simple yi bëgg ko ah léegi nag lit avec frappe bi na ci la bëgg wane boppam moo tax mu dëkkuri Gris 2 ak rëg-rëg waaw parce que tamit moo rëg-rëg yàgg nañu daj lit simple bi waaye ci arène bi moom yaakaaru ma ne actuellement pour mu bëre ak moom dina gaaw fi mu nekk nii nii nii parce que tamit bu xoolee logique bi ak affaire ni muy doxee rëg-rëg li li avec bi mu ngi ci def ay jéego di avancer di dem Gris de 2 kazalika naka noonu loolu moo tax Luc Nicolaï boole leen pour le 16 juin kon Ibou Ndiaye moom tamit li koy wax rek mooy bu yoon jeexul waxu suñu du jeex bu góorgóorloo tuuti ah day bëre ak ñoom léegi te du yàgg waaw loolu moom bu bu na yokk liggéey bi rek waaw waaw mais am na droit nag dëkkulee naa parce que ñoom ñëpp ay adversaire lañu ñu jeexalee euh, si Leewtoo point net audience bi nga xam ne Matar Ba ministre des sports dina ko defar euh, dina recevoir ñaari mbër yi nga xam ni ñoom ñoo bëre woon diggante Garga Mbossé ak Moussa Ndoye suba leen recevoir si ministère ba à 11h. waaw loolu day lu lu lu am solo la parce que tamit bëre woon nañu comme ni ma wax rek bëre ku daan wàcc waaye dana sax ku daan waaye tamit doo daan nit ki ba yóbbu ko da koy daan rek bàyyi ko mu ñibbi nga ñibbi bu ñu amee comparaison boobu Moussa bi mu daanoo ci micro Leewtoo wax na fa nekka nangu na defe tam bi ñu koy encourage ci ajuma gi di ko balu ak moo waa ministère des sports yëpp di wax ne daal loolu am na solo trop ñaari mbir ñu dajale ñu waxtaan mu lay wan ne sport benn la ñun ñëpp ñoo bokk nday bokk bàyya ah. bu xëccoo jotee nag ku ne di nga def sa fulla ak sa jom ak sa fayda ñu xëccoo mais bu ndam amee kañu daan nangu ne moo daanu ka daan itam feete ndamam mais ak ak dal rek dafay am solo daal am solo ndax sport aussi fair play la ñuy wax si kàddu yooyu la leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu euh, sama yaay mère Sow teg si Mohamed Diouf sama doom di nuyu Jobbe sama cousine depuis depuis euh, depuis Mauritanie di nuyu Astandine depuis Italie chérie Khadija Diallo di nuyu di nuyu aussi Dadi di nuyu aussi Aïcha Faye bi nga xam ne mu ngi si beneen liggéey Babacar. waaw di nuyu ñëpp ah, di nuyu ñëpp nday Kumba di balu ñëpp ak si weeru koor bi rek di ñaan yàlla rek weer wi xam nga yàlla na yàlla nangu kooru jullit yëpp. barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te bu ko nangoo def ko ngëneel si àddina bi ñëpp am jàmma loolu la ñuy ñaan mais di nuyu internet ñuy suivre fu ñu mën a nekk si àddina bi xam xam nga ku mel ni tuuti ay Sarr duñ ko di ko nuyu di ko ziar Baye Sall depuis Paris Assane Sall Argentine xam nga Mame Modou Gueye taalibi sëñ Mbaye si Abdou Benzema Ousmane Diop xam nga ak ki nga xam ne ni mooy Mamadou Kaolack jàlloo nekk ba Lisbonne ca Portugal ak waa Dubaï waa Gambia Côte d'Ivoire Benzema dem duñ ko fàtte du nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre waaw buzz waa buzz waa buzz sama patron Ibrahima Faye buzz borom Lit TV ak BP Acti borom pay-per-view bi ma koy nuyu ah, di ko encouragé yoo xam ne moom tamit ku ñu war a jàppale la si réew mi ndaw la te bàyyi na dëkku tubaab yi ñëw réewam di fi liggéey créer ay emploi di fay ay doomu aadama innové ci lamb loo xam ne kenn xalaatu kon ko muy pay per view kon pay per view bi mu jëm digganteem ak Baye Ndiaye yàlla na ko ci yàlla may ndam barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy nuyu bu baax di nuyu waa Lutte TV yëpp rawatina Lamine sama rakk sama seex ak ñoom Mohamed mais tamit groupe whatsapp soppee baaba xam nga dama am fan si club ay nday kumba tey ordinateur lañu invité mooy seen invité ci groupe whatsapp bi ma di leen nuyu ñoom soppee Babacar yëpp parce nag li ñuy def ñoom ñoo koy gis ba di ko apprécier encore une fois daal di wax ne baaba Babacar mu ngi fi di leen déglu su ma jubbanti leen ma su ma wàcc yoon itam dellu si leen na ci raay bi ndax nit matul yàlla rek moo mat kon maa ngi. doo nuyu sa doomu ne Talla Ndiaye. Talla Ndiaye non ma ko fàtte gis gisoo montre bu rafet bi ma ko takkal démb gis nga la ma ko defal démb moom. moom xam maag moom dañoo déggoo ndax xam nga liggéeykat la te ma dama bëgg liggéeykat xam nga liggéey looy def na naturel. Mm. naturel dafa dafa gën a wóor li li li doy waar mooy nit ki lépp looy def rek muy man sama bopp laa koy njëkkee muy yow muy taala bul ci maanaam bul bëgg bu ko forcer li neex daal mooy que ni lépp looy def rek na naturel et na la jaral waaw liggéey noonu la balaa ngay xaar loola calis di fay wala loola taala njaay di fay liggéey di balu ñëpp ak di wax ne xol bu sedd yaram mu sedd fleur ci maquillage bi maa ngi lay nuyu mademoiselle Thiam